السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت اللي أرى البسس وهابسي حياكم الله حياكم الله أيوة مقيتين يفسين ينو العالم العلامة أستاذ بالله بنيان برم سبحانه وتعالى مدفل كتوفيق دفل نيكو مركسي أو الخدين مقي يسوني وقتانو تي بني واخو بكي دك بوبو نيوخ عربي سوديت nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba mu fay bàyyeekoo mu ngi fa bàyyi woon ardul hijaz dëkk boobu nag nga xam ni coalition Mohammed Ben Saoud ak Mohammed Ibn Abdul Wahab jël dëkk bi tudde ko seen maam Saoud waaye dëkk bi ñu bàyyee xel ni dëkk la boo xamante ni dafa am ay pàkk yu sell ay bërëb yu sell waaye dëkk la boo xamante ni dafa am ay symbole yoo xamante ni alquranul karim tudd na ko mbokk yi yàllante woon ak dëkk boobu xam valeur am xam ni kat bu meloon na mu war a mel ci yoon moo war a nekk capitalu jullit ñi yëpp waaye da nga gis ni safaan ba moo am lépp loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële woon na ko fa da nga gis ne a nekk ne tey dëkki Arabie Saoudite euh, nga xam ne diggante Makka ak Medine lu leen neex la def foofu caaxaan yu leen neex léegi loolu moo waral tey mbokk yi ñu fas yéenee waxtaan la nga xam ne nii moo nga fay xew rawat na li nga xamante ne nii euh, prince ba mu ngi koy amal muy Mohammed Ben Salman ay njaaxum yu bëree bëri amal na fa ay bërëb yoo xamante ni dañ fay defee boîte de nuit di fa fekkee di fa fo yemu ca euh, fan yi rek yéen a ngi dégg nit ñaa ngi koy coow mu daganal fa bërëb boo xamante ne nii dañuy naan ñii ñooy personnalité yi nga xamante ne dañ leen di jaay sàngara dagan na te yàlla waxoon ni آه، لا تقربوا الصلاة وعنتم سكارى آه، فلما وحن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه مع اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما فننبرا بسبحانه وتعالى وحني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان بقي ay ñëw ci alquranul karim di di rad sàngara di ko dagg di ko sànni ci àll ba bëri na waaye caaxaan ya ñuy def lan moy cause bi ana lan moko waral Mohammed ben Salman ngeen ñoko formé ba tax loolu mu mën koy def dëkk bi nga xamanteni ne yeneen bi sallallahu alaihi wa sallam mu nga fa tëdd kaaba ga nekk fa te yàlla waxon ni ama yuazim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub wa man yuazim hurumat allah fa huwa khairun lahu inda rabbi waaye lan mo tax itam wahabisi ñom ñep ni ñu ñak yar ak ni nga xamante ni noonu lañ indiscipliné kilifa lu mu baax baax wàlliwu lu mu sell sell sell ñeme nañ ko critiquer teg ko ci critiquer pour le plaisir de critiquer lan moo tax ñoom ñëpp ñu ne miix daal di noppi seen njiit yi nekk ci réew mi lan moo tax ñu noppi kenn ñeme wuta wax jëmale ci loolu war a nga remettre en cause Mohammed Ben Salman kon li nga ci jàngate rek mooy yàlla taxu leen jóg ne mbir mi ab politique la léegi lii la ñu Oustaz Ba la fas yéene ñëw leeralal point par point caaxaan yi nga xamante ni moo am Arabie Saoudite lan moo ko waral ak nan lañ mën a def <clears throat> ba mu jóge fa ak lan moo tax wahabi si fii duñ ci wax ak wahabi yi ñoom sa dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom association de malfaiteur lañ wala ay yahud lañ wala lan lañ doon ndax boo xoolee lépp lu yàqu ci diina ji ñoom la kon oustaz Balla bismillah barakallahu fiina wa fiikum tafaddal aoudu billahi min a rajim bismillahi rahmani rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mbokki daara ñi ngi leen di nuyu baax baax di leen siyaare. Di jël nuyoo bi Di ko teg suñ di suñ nurullah mu jal ñëpp ci mboolem mbokk yi daara ji rek. jamu di di ko ñaanal ñëpp képp wax ab jullit fa mu nekk rek yàlla na yàlla defal jàmm di ko ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne nekk Palestine yàlla defal leen jàmm yàlla may leen ndam te ñi faatu ci ñoom ñëpp suñu borom def leen ñu tàbb àjjana te yàlla alak yahudi yi toloxal leen ak ñi leen di jàppale kon waaw tey comme noonu suñu laay waxee rek dañoo bëgg ñu waxtaan ci menn réew ci réew àdduna bi bokk ci réew yi jullit yi réew yi jullit yi waxtaan benn réew ci réew yi nga xam ne ay jullit ñoo ko dëkk man duma ko jàppee réew mu jullite waaye dama ko jàppe réew mu ay jullit dëkk ndax réew mu jullite ak réew mu ay jullit dëkk bokkut Sénégal gi réew ju réew réew mu ay jullit dëkk la waaye day mujj lu teewut ndax atte yi ñu fi doxal du atte yi lislaam kon mos na ko jàpp rekk réew mu ay jullit dëkk loolu nag moo nekk ci dëkk bi ñu wax arab saudi moo nekk yeneen dëkk yi tam mel waaw bu dee lu war a wax ci arab saudi def naa dafa am lool li ko li tax ñu war cee wax li si njëkk mooy de réew moo xamante ne bi dafa am jeexital lool ci jullit ñi daa am jeexital boo xamante ne bi jeexital bu am doole la ci jullit ñi nga xam ne du ma sa jeex nga xam ne wax ne sax bu fekkonte ne jullit dañoo am dañu am njiit daanaka fa lañ ko gën a mën a yaakaare foofu la njiit la waroon a nekk tey réew mi moo waroon a jiite jullit ñi ki jiite julli nit foofu la waral nekk tey ndax jil ñëpp seen xol foofa la gën a jëm jil bu nekk rek li ngay ñaan yàlla mooy bala ma bala ngaa faatu siyaar ji foofa aji siyaar ji ali siyaar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julit ñëpp loolu lañu ñaan ndax ci lislaam daa am ponk boo xamante ne bii kenn ko def fenn kenn mënu ko def fenn fudut réew moomu di arab saudi kon loolu tax na ba jullit bu nekk dafay xew war laa intéressé war laa ñor leneen li ci li ci des nag mooy réew mi ci boppam dafa am influence dafa am jeexital boo xamante ni bi politique la wala sax diine bu bu bu raxu politique la bu mu jeexital ci kaw suuf si yëpp ci àdduna bépp nag arab saudi waxuma la xol maanaam féete gu mu féete ci xolu jullit ñi nekk gu nekk ci xolu jullit ñi jullit ñëpp nag ku mën a nekk rek arab saudi moom sëm réew la ndax sallallahu alayhi wa sallam fële tëdd te mooy xayru xalqullaah te ñun àdduna bépp ko bokk bëgg jullit ñëpp ko bokk bëgg kon kooku fu mu nekk fu ne faw jullit ñu bëgg foofa suñ sëriñ su baax si ñoo Eh, tag tag yonte bu baax bu madina tag makka tag tag lepp ñu tag ko yépp nak kon taxna ba ñu bëgg fa ñëpp bëgg xol yi ñëpp nekk fa leneen li mooy dafa arab so dafa jeexal ci aduna bi dafa am jeexal ci ko aduna bi jeexal bo xam nak man dama ci dama ko sétlo eh, négatif bi mu ëpp positif bi manam li nga xam moo ci lu baaxut mu ëpp lu baax ab jeexal moom que réew politiquement bu rax diine man dama gis ne jeexal bi li gën a li ci ñaaw moo ci ëpp li ci baax jeexal bi mooy lan mooy réew yépp tey fi nekk nii ñi nga xamante ñoo jàng arab saudite nekk fa dañ leen lakkal ci ay kaafir ngeen ay yéefar ngeen ay bokkaalekat nga yàlla ngeen ay xubuur yu ngeen maanaam wax ju ñaaw ju ne ba sax génn leen ci diine ji te loolu am jàngale la boo xam ne dañ ko jàngale foofa foofu la foofa la nag ñu jële ko fa indi ko suñu réew yi di ko tasaare mu mu nekk ay wax ju ñaaw ju ñuy wax ju ñuy wax ñu bokk ak ñoom pas-pas mu àgg ci ba am ci ñoom ñoo xamante ni bi leen jaral ñu ñu ñu ñu yor ngànnaay jëm seen mbokk julit di leen lor sen sen sen bakkan di rey nit wala ñuy rendi nit wala ñuy taal nit wala ñuy def nangam ay am na mbooloo yoo xam ne mbooloo terroriste la mbolo yo bu lañ jangate bu jangate bu jàngat len sen pas-pas ba fofu lañ ko jëlé kon ñaari mbir yooyu nak taxna ba rew mu nek rew mo xamanteni bi bii fa dara xewee jullit ñi war nañ ci yëy yabbi ca war nañu yëy yàbb ca léegi nag ñun bu ñuy wax ci arab saudi dañuy gis ne béréb la bu yàgg tudd tuddutoon nag arab saudi tudd sax boo ko seet da xam ne tudd sax daa ngay gis ne daanam lenn ci tudd rek dëppwut ak lislaam mooy al mamlaka al arabiya ak saoudiya noonu tudd mamlaka mooy ruwaayom yéen nag bàyyi fi ruwaayom saxaaba yu mag itam bàyyiwuñ fi woon ab ruwaayam bañ mën a jàpp ne kon lu islaam reconnaître la réewum jullit warta nekk ruwaayam loolu islaam gisuma fu fu bind ne yonent bi dafa digle woon jullit ñi ay ruwaat leen jiite loolu gisuma fuñ ko fuñ ko yaxal kon ruwaayam arab yi beneen arab daanaka aw xeet la te islam du xeet sanwa bi moom moo gën a gaaw ma famille la ñetti baat yëpp boo ko dee xool amul si lenn la delloo ci islam yàlla wax na ngay xam ne lii kat yëf lislaam la waaye ci nekk rek aw xeetu arab la ci biir xeetu arab tardé benn benn famille ñu fi mu sanwut ñu tudd leen turu donte turu nag tudd wutoon noonu xijaas la tudd xijaas arali xijaas arali Arabie Saoudite nag nekk bu bu golfe bi la toll ci deux deux millions deux cent cinquante euh, deux millions deux cent toll toll yaatuwaay kon dëkk bu yaatu la yaatu la doon dañ fa dëkk nag tax ñu bëri lool ndax ay trente millions jëm si fa trente millions nit ñoo fa dëkk ak topp li ci mën a xam dëkk la bu yaatu dëkk la it bu suñu borom sotti ay koom-koom yàlla dafa leen a jox lu bëree bëri ci alal ay koom-koom yu bëri leen suñu borom am na jamono ma doon ci def benn gëstu xool aj gi rek li muy waaye aj li muy dugal ci xaalis bi bëri li muy bëri bëri bëri daanaka motul askan pétrole bi mosul as motul asaka pétrole bi te ku ne xaj xam ne aj aj yi la muy dugal ci xaalis xaalis bu dul jeex du xaaj la ndax àdduna béppee aji te daanaka umra moom àdduna bépp koy def ci jamono ju te ku dem da nga ko bàyyi xaalis loolu nag xaalis yu bari bëri nañ bi boo xamante ne bi moom moo fay def xaalis boobu yëpp nag fi ne maa dund arab saudi waaye xaalisu aj geeg umra boo ko dajale woon matul asakay xaalisu pétrole bi waxuma la xaalisu gaz bi de matul asakay xaalisu gaz bi doole ba xaalisu or ba dëkk bu bëri or la ak yu bëree bëri yoo xam ngi am Arab Saoudi kon dëkk la boo xam ne bu suñu borom defal xéewal la xéewal googu nag yàlla moo ko ña suñ suñu borom moo leen ko jox euh, nangaloon ko woote suñu maam Ibrahima bi ndax ñëpp xamé nañ fatlikou nañ ci al baqara ba suñu borom di wax na xaal ibrahima rabbi ijal haada baladan aminan warsuq ahlahu min asamawati min man amana minhum billahi wal yawmil akhir xaalaw man kafara fa matu xalil suma taraw ila asabi naari bi isal masir ci suratul baqara loolu suñ ibrahima waxoon yàlla na ko dëkk bii def ko muy dëkk bu am sécurité baladan aminan booba la jëloon doomam ji Ismaïla yóbbu ko Màkka bu dëkk fa moom yaayam ja ma leen dëkk bu ñu ko dëkk nag ne woon yàlla dëkk bi ko dara nekku fi waaye maa ngi la ñaan nga defal leen ñu mu dëkk bu am jàmm dëkk bu am sécurité te nga wërsëgal leen tam lu bari ci ay meññeent ñi nga xam ne ni gëm nañ yàlla ci ñoom te gëm nañ yàlla gëm nañ tam bés bee ñu ci ñoom na leen wërsëgal loolu yalla wax na man kafar minhum sa matti xaleel su mat ragal asaabi naar bisa mas ne nak yalla tal nan ku ku ku kep ko xam ne wedd na ci ñom nak da la ba da la jox nga banexu tuti waye da la mbugal sabar sabar sabar muy safara sabar bon kon ibrahim ñaan lan na len ci suuratu baqara même bo dem suuratu ibrahim tam eh, am na ñaan ko fa nekk xamé tam ci ñom la jëmon rabbana inni askantu min zuriyati bi wadi xayri zarin inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu salata faj'al afidatan min nas tahwi ilayhim warzuqhum mina samarati la'allahum yashkuruna nga xam ne foofu Seydina Ibrahima daa wax ne yàlla maa ngi dëkkal sama njaboot gi ci aw xur woo xamante ne bii amut amut amut garab xëy na si zarin amut amut meñ amut meññeent waaye nag ci sa bëy ci sa ci sa bëyt lay xaraam laa ci sa bëytum xaraam laa ko daal dëkkal mu wax ne rabbana li yuqimu salaata yaay nag ngir ñoom ñu jaamu yàlla kon nga xam ne yàlla Seydina Ibrahima ba muy ñaamu ba muy ñaan li yuqimu salaata la waxoon li yuqimu salaata mooy yàlla mooy ngeen jaamu yàlla kon ñaanu Ibrahima xéewal gam ñaan loon gam ñaan loon ak jàmm jëm la ñaan pour ñu jaamu yàlla moo taxoon mu ñaan leen ko moo tax mu waxaat ne waccal afidata min naas tahwi ilayhim jëlal xoli nit ñi ñuy màmm jëm si ñoom moo tax arab saudi ba àdduna tukki nit ñi dañuy màmm di fa dem xol yëpp fay dem comme xol yee fay dem nag mënuñ koo mënuñoo gis noonu muy muy muy muy de muy dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ci jëm ci ak mbon hmm? ñun ñun ñëpp mën cee noppi ku ci nekk da nga ci wax la nga ci mën ndax islam la waxoon mooy man raa amin ku mën ko rànca fal yu xayru bi bi bi bi bi yadihi boo ko mënee soppi sa loxo nga soppi sa loxo boo gisee lu baaxul boo mënee soppi loxo soppi loxo boo mën soppi boo mën laa bi na nga mën sab xol kon nag mën nañ caa wax kon nañ des wax wax ja dana din xam arab seet ku ñu bëree bëri bu ñu seetloo mi ngi tàmbalee njàqu bi nga xamante ne bi Muhammad ibnu ibnu Abdul Wahab lëkkaloo nañ euh, ki yor nguur ki yor mu nekk nag loo xamante ne buñ ko seetloo des na ko tudde lu mel ni faslu diin ani dawla maanaam tàqale diine ak dawla te islam moom xamut loolu islam saxaabi yi nga xam ñoo nekkoon ay yonent bi fi nekkee lépp moo lépp la booyoon parce que islam xamut diine ci tàqale ko ak dawla lépp benn la bi fi nekkee Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou Seydina Muawiya mboolem ñi nga xamante ñoo nekkoon ay xulafa ci islam ñoom ñëpp kenn xàmmewutoon ne kii moo yor diine ji kii moo yor réew mi loolu xamuñ ko woon al xalifatu moo yore diine ji moo yore nguur gi waaye nag Muhammad bi mu ñëwee di woote ne moom dafa ñëw mu jedd day day woote ci lislaam day woote ci tawxiid sax nag euh, moom sikk sàkk am na ci ndax xam na tawxiid waaw des na sikk sàkk na ndax moom xam na sax tawxiid dëgg dëgg dëgg waaye bi mu ñëwee daal ànd ak Muhammad ibn Saoud Muhammad ibn Saoud bëggoon nguur moom ñaar nag bi ci naa ci mille euh, sept cent quarante quatre dafa lañ defaroon lañ lañ taxawaloon awalu dawla saudi mu seen mu mu baayaa bañ defoon ñoom ñaar waaw kii téel kii nguur gi kii téel kii diine ci ñaan noonu nag fas yéene tasaare euh, gi gis-gisu Muhammad ibn Abdul Wahab fas ko tasaare idée bi fas yéene tasaare tam yaatal tam nguur gi nga xam ne mooy nguuruk àll saoud loolu ci mille sept cent quarante loolu la woon yàgg na lool baag léegi mën na euh, ñaar téeméeri at yaakaar naa ne ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bu jubur euh, ñaar téeméeri at juróom-ñett fukk wala lu jege na ko am daal yàgg la boobu ba léegi nag arab saudi moom dafa wàcc yoon wi nga ne moom la yont bi tëraloon ci euh, béréb boobu war faa jaar waaw rek mooy tàmbali di indi ay xeex ak tur det ay jullit ak takfiir ak wax nañ ay jullit ay kaafir ngeen ak takk ay xare di xeex ak dëkk dëkk yoo xam dëkk jullit lañ di rey ku wuuteeg ñoom ñu la yow ab mubtadi la ab xubuuri nga wala ab musrik nga bokkaalekat yàlla nga walla sax ab kaafir nga nga xam ne xare yi nga xam ne Muhammad ibnu Abdul Wahab daan na ko israaf te Muhammad ibnu Sawud ak ay soldaar daan yor guerre ya guerre ya di nga tuddee al fatxu nga fatxu ubbi comme li nga xam ne moom la ñu naan fatxu saam ak fatxu xijaas ak yooyu nga xam ne moom la ca saxaaba yaa ngi daan def ñoom dañu ñëwaat li yonent bi ubbi woon ñu koy ubbiwaat ndax jàpp nañ ne ñi fi nekk ñëpp léegi ay kufaar lañ delluwaat nañ ci kufru ga kon nañu war a ubbiwaat béréb yooyu noonu idée boobu nag idée wax ab jullit yéefar la wax ab jullit bokkaalekatu yàlla la idée boobu nag tàmbalee law anglais nag gis loolu xam ne ak yahuud yi xam ne occasion la foofu ñu xam bu baax ne yahuud yi euh, dañ ñoo xamante ne bii yàgg nañoo pexeel lislaam ndax ku leen xam-xam ne ca bañ amee ba fi nekk nii mosuñoo bàyyi lislaam seen seen seen seen seen jubadi sax jiitu na lislaam ndax ñoo ko Seydina Isa ak ñoo ko saxaaba yu baree bari am nañ taxawaay yoo xam ne taxawaay yu yu yu métti la xam ne ñoom ñoo ñoo ciy def seen seen seen seen jubadi parce que bi yonent bi ñëwee itam ah ñëpp gis nañ dëng gi nga xamante ne bi yëfu def nañ ko seen diggante ak sallallahu alayhi wa sallam demoon nañ sax ba posone am ña aw yàpp jox ko ko ma sallallahu alayhi wa sallam jox ko waaye ci baaxu yàlla yonent bi lekkut ñam wa ndax ñamam moo ne ko dañ ma tooge loolu buñ xoolee Sëñ Tuubaa na koy wax ci ak xasida من نستمع إلى التسبيح التعاون في كفي أفضل الأنام منام نيمبا ما غي سابا تا لوخوب كي گن تي مندي في نيمبا نك موي نيمبا توخ وون نيمبا لو سابا نك ما توخي ما دوي ليكون نيمبا كون لولو بوكو نتي بخي نانا بخي يهودي بخ نانا خانا بخي مو ني بخ نانكو نك يعني بي في بي في لب جوي كون نان دي بخي روخ روخ لي صحابي Euh, jaxase leen def ay pexe nangam nangam yu jafe yëpp même jële jël ay wax yoo xam ne yonent waxu ko ñun askan la ko yonent bi wax yow yéen wax ay duural la am na nguur yi fi nekkoon yenn nguur yi di jéem a not euh, jullit ñi ak di jéem a sonal jullit ñi seen manigage rek ku ne xam ne manigage yooyu moom foo leen fekk moom pexe rek te ñoom liñ soxla leen lañ soxla ñoom liñ soxla mooy alal lañ soxla te xam ne ne nit ñi fu ñu amee jàmm ak salaam ñoom duñu am alal moo tax ñoom fu ñu fexe rek dañuy fexe ba nit ñi duñu am jàmm ak salaam te islam dafa ñëwoon pour nit ñi am jàmm moom dafa ñëw rek pour adduna bi am jàmm ak salaam waaw ndax jikko rafet moom dafa ñëw ñëw booy stulé wu tàmmi makaarimul axlaax te makaarimul axlaax fu mu am rek jàmm ak salaam ma fay am yahud nag ñoom loolu déranger na leen parce que ñoom fu jàmm ak salaam am duñ fa mën a dund dund gu tegu si yoon fudd ak dëng ak ak tooñ ak ak beew am rek lañ mën a lañ mën dunde ñu gis nag Mouhamad ibnu Abdul Wahab Mouhamad ibnu Saoud ñoom kat seen taxawaay ci lislaam taxawaay bi arrangé na leen parce que ku leen jàppale buñ dëgëree rek jullit moom dootuñu am dem islam dafay ñoom ñu mën a commencé loolu nag lañ tàmbalee loolu lañ tàmbalee ba waaw Euh, loolu lañ tàmbalee ba daal di fexe ba boole boole Saoud Mohammed ibnu Saoud ak Mohammed ibnu ak anglais ñu jox leen ngànnaay jox leen doole financé leen jox leen i xalaat jàppale ci wenn wet yi ba gi taxaw noonu lañ kon ne ñoom kon ne ñoom kon nguur gi ak fi jii nii la ca la ca xaw boole nguur nga xam ne fi idëb Mohammed ibnu Abdul Wahab daal di formé idée idée boo xam ne bi idée bi li ëpp mooy takfir moo eh, ci gën a bëri ne julit kaafir nga te takfir koo takfir fa nga jëm moom da nga koy taqtil koo ne kaafir nga rek eh, jaal jàng da nga jàngaay la waaw ah. xaatilul musrikin kaafatan rey leen julit ñi rey leen kaafir lañuy wax te koo ne kaafir nga rek ko ma ci topp su demee nag yahudi tam daan dañ dañ am pexe ba rey kon loolu la noonu la réew ma génn ci loxo waaw tàbbi nag léegi ci loxo yi euh, yahud yi ndax man damay wax ne ñu bàyyi xel bu baax baax ne yahud yi ñu wax ne ñoom seen réew mi ngi tàmbalee niil ba furaat la tàmbalee mi nahru niil ba nahru furaat nahru niil mi ngi ci Égypte nahru furaat mu ngi ci Irak ñoom dañu seen réew mi ngi tàmbalee Irak ba Égypte loolu nag da ngay kon da jéggi Arab Saoudi kon kon loolu yëpp jàpp ñoom seen réew la maanaam fi seen nekk rek jàpp nañ la man gis naa sax jamono yi passé am na ay ay yu may gis yoo xamante ni bii ñu ngi ci bind naan ñoom ñu ngi la commencé di laaj seen àq ci arab saudi euh, ci madina ak madina ak ak ak ak ak euh, makka yow yi nañoo laaj seen àq yi am ci madina parce que seen maam nekkoon nañ fa amoon nañ fa àq kon ñu ngi koy tàmbali laaj loolu man gis naa fuñ ko fuñ téere bi ñu ko yaxal ba ëllëg sax yaakaar naa mi ngi ciy wax mi ngi ciy wax ay pexe daal mi ngi ci jëm kon yahudi foofu lañu jaar rek ba récupéré waat euh, al mamlaka al arabia saoudia léegi nag di ko jëfandikoo nag pour xeex jullit ñi ñoom ak anglais ak sionistes si di jëfandikoo nag arab saoudi léegi pour xeex jullit ñi muy réew moo xam ne mu bari ay ay ay ay ay jafe-jafe la nga xam ne jullit ñu bëree bëree bëri seen deret tuuru na léegi nag bi Arabie Saoudite taxawee ba dëgër ku ne xam na ne ci la Palestine ñàkk am réewam ci la Palestine yi ñàkk am réew waaw Palestine yi ci bi Arabie Saoudite dëgër rek dañuy jaay parce que dawla bi fi mujj nekk mooy dawla Ousmane yi anglais bi ànd ak saoudien yi xeex dawla Ousmane ba daane na ko lañ ci saasi lañuy créé Euh, lañ ko dawle dawlatu Israël bii nekk fii Israël dañ koy Israël tey te Israël dafa dëkkoon Palestine ñoo fa dëkkoon muy seen réew nga xam ne Israël su mësaan dem Palestine day ñaan visa Palestine Palestine may la visa ñu ñëw buñ paree delluwaat seen réew waaye gis nga fu nekk nii yahud yi ak anglais yi ak yahuti naar yi def nañuy pexe ba jox Israël yi suuf si nangu ko ci Palestiniens yi ci ay pexe léegi nag li ci des mooy li ñuy def ba dëgëral Israël ba mu toog ba nga xam ne dootu fi jógeeti comme jox nañ léegi nangu nangu nañ nangu nañ arab saoudite ci arab yi jox ko xeet wuñ xamut ñenn naan xeetu yahud la parce que usra saoudi am na benn benn baax suuri boo xam naan usra yahudiya li wax na seen maam mi ngi tudd Mordoxaay ab baaxi suuri bu tudd yaakaar naa ne uñu euh, euh, tëdde dañ fàtte tur yi nan nan son yëpp nan son yëpp la tudd waaye ab suuri la soo fàttee tudd naa ko wax moom gis naa benn bés muy def benn ar di wax wax ba àgg ci loolu ne sax am na seen téere yoo xamante ni seen téere taarix la taarix sango di bu xam ne dañu ko jàngale euh, boo demee ca jusu sa yi day ba taarixu raab yi day bi yàgg ba nee na mu leen fekk ci nag seen asl ba waaw taarix bi leen taarix bees bi nag yaakaar naa ko ci gis man nag xoolu xool naa xool pour am taarix boobu waaye mosu amoo ko woon ndax ñoom dañoo xereñ bu baax baax bu ñu bëgg effacer ni asaar dañ koy effacer lu ci mën a xew rek yahud yi fexe nañ ba récupéré foofu récupéré ko nag léegi taxaw nag pour dëgëral pour may doole Israël lu ñuy may doole Israël nag mooy fexe ba benn réew liy wër réew yu wër euh, Arab Saoudi wala réew yu wër Israël di jàmm du fa am ku baaxit it du fa jiite ñu ko jiite rek mooy ñoo xamante ne bi ay alliés lañ wala ay donga Israël wala sax ay yahud lañu doon ñoo jiite dëkk dëkk yooyu nit ñu nekk ci ci musiba nekk ci nooteel waaye duñ am jàmm jo bu ñu am jàmm salaam duñ ca mais dañuy créer ay mbooloo yoo xam ne naan leen yéen yéenay mujaahiduun yi walla boog ñu leen yéen yéenay muslimun xàqan yi ñu ci def ay kufaar lañ moo jëlee leen ñoom defee ñoom ñu nekk ci réew yi jullit ñi ñoom tam dafa créer ay xeex ko ni nga gis daangi sax ay Boko Haram ak Ansaar bi mu nekk ma nekk groupe terroriste yëpp ay Al Qaïda groupe terroriste yëpp nga dëkk rek ñu créé leen foofu nag créé leen maa bés dana war ñëw ñu waxtaan ci kayfa an sa kayfa tàmm inshaul euh, al jamaat irhab yi jamaat irhab yi nan lañ leen formé war nañoo ñëw benn bés wax ci ñu formé nan lañ nan lañ woo fan lañ jaar ba am ndax taarix la boo xam ne yàggut lool ñu bëri ñu ngi dund sax ñi ko doon forme te ñu bëri xam nañ si dara waaw bëree bëri xam nañ si dara léegi nag taarix boobu yaakaar naa war na ca waxtaan benn bés alaakulli loolu luñ formé waaye yooyu yëpp ngay dégg rek taarix boobu ngay dégg ak jamaa irhab yi ngay dégg ak mboole yi nga xam ne ñoom lañ créé imam yi ñu créé suuf yi ñu créé yëpp pour pour pour pour néewal doole jullit ñi dañ ko def rek pour néewal doole jullit ñi pour Israël am doole yahudi fan lañ jaar ba teg loxo ci arab saudi loolu histoire bu histoire bu yàgg mu histoire bi nga xam ne moom ma nekk diggante Mohamed Ibn Abdullah ak Mohamed Ibn Saoud jàpp ci anglais yi nekk fii jàpp ci côté yow jàpp fee ba nangu dëkk ba daane dawla islam yi yore ko biñ ko rek forme benn forme benn nguur nguur goo xam ne ñu ngi tudd moom la ko soxna Arabie ñu doon la ku doon ku nekk ku fi jóge sa doom doon la mbaa xam ne bii kenn ku kenn di falu ku dul ñoom jël islam rek teg ko ci loxoom beneen usra beneen famille boo xam ne famille bi mooy àllu cheikh cheikh bi mooy cheikh Mohamad Ibn Abdul Wahab ak ak famille ay doom ak sitam ñu ñuy doon tam lislaam nag daal di nag taxriif nag islam léegi créé beneen islam bu bees boo xamante ni bii dew dekk ma nga woon jamono Mohamad Ibn Taymiya amoon na mooy islaam bi nga xamante ni jàpp na yàlla gis la yàlla day yéeg wàcc comme loolu nga xam ne moom mooy seen seen gis-gis ak wax xoolab jul gom neex na nga yow kaafir nga musri nga muftade nga yooyu ñu dekkal loola léegi nag def ko lislaam jël ibn jël ahlu sunna wal jamaa daal na ñoom ñooy ahlu sunna wal jamaa ku dul ñoom do ahlu sunna wal jamaa ñu des ñëpp ay ashangare yeeg maturidi yeeg chien yeeg ñu des ñëpp ñu leen yéen moom toog leen fa duggoon ak julit julit moom ñu ñoo julit léegi nag su ko defee ñaari kuréel am yoo xamante ni bi dañuy commencé di jàmmarlu ak xeex ñoom ñoom ak chiites yi ñoom ak sufiyanke yi ñoom ak ashari yi ñoom ak maturidi yi ñoom ak ñëpp rek ñu xeex xeex boo xamante ni bi ku le xam na ne njariñ li du du wahaab yi ñooy gañee ci xeex bi du ahlu sunna wal jamaa ñooy gañee ci xeex bi waaye yahudi képp ñoo ciy gañee tàqalikoo bi nga xam ne tàqalikoo na julli ñu tàqalikoo nañ moom njariñul yahudi di njariñu chiites yi di njariñu ahlu sunna wal jamaa di njariñu ñeen waaye yahudi la kon mbir bu amee nga bëgg xam kan moo ko kan moo ko def da ngay xool kan moo ko kan moo ci gañe waaw loolu lañ koy xeex ci leen créé ay guerre yu bëri ci ci àdduna bi defar ay ay mbooloo iraq ni ma ko wax léegi tudd leen ay mujaahidoon yëmuñ te waaye dañoo formé ay mbooloo yoo xamante ni mbooloo yu bëri bëri bëri ci ay ay doat ay wootekat ci lislaam ñoo xam ne tudd seen bopp ay wootekat ci lislaam lañ jàng leen former defar ay junni junni ah, jàkk ci àdduna bi defar ay école yu bëri bëri ci àdduna bi ay université yu bëri daf ko tasaare ko ci àdduna bi daal defar ay téere yu bëri téere yépp ñu defar ko defar ko yenn téere ñu falsifié ko téere yenn téere julli ñu falsifié ko yenn téere ñu bindaat ko defar téere yu bëree bëri daal di ko jaay di ko maye ci àdduna bi di finance nag ay milliards milliards dollars pour pour pour principe boobu nga pour gëm-gëm boobu nga xam ne mooy mooy diine ju bees yi ñu mën saalu ci àdduna bi formé tam imaam yi ak doa di formation boo xamante ni bii dañ leen formé ci ci ci xam-xam yi gën a bees ci ni ñuy xas ñuy raxase raxasi bopp ni ñuy laba ser ni ñuy labe ab cerveau maanaam ni ñuy lu baax dindi ci bopp def ci leneen ñu aay ñu jàng ta jël imaam tàggat leen ba ñoom sax xamuñ leen leen tàggat ci loolu tàggat leen bañ tàggat bu xarañ ci laba cerveau ñu wër àdduna bi nag génn ñi nekk ci réew yi jullit ñi Afrique ñi nekk Asie ñi nekk Europe ñi nekk fu nekk nekk ku nekk di woote nag nga nga ngi woote ci islam fekk la nga woote lépp bidaa bona bon la ak wed yàlla gu bona bon la ñu bëri topp lañ ci nag waaw ñu leen di utiliser suñ bëggee xeex xeexloo leen buñ bëggee saaga saagaloo leen buñ bëggee tàqal jullit tàqali ko tàq fexe bañ ñoom ñu jëf utiliser leen tàqal jullit ñi nag daal jàpp nag ñoom ñoo yor diine ju wér ñoo ko yor dëkk bi nga xam ne mooy dëkkub tawhid ñoom ñoo dëkkub tawhid ñoom dëkku tafsir bi ñoo ko yor loolu nag ci lañ ci lañuy doxe ba fi mu nekk nii ba jamono jiñ toll nañ ci lañ toll nañ ci xam ne képp ku bokkut ak ñoom rek yow même boo leen jege woon sax pas-pas naan yow ab kaafir bu nga xoolee ñi ñuy wax ixwaanu muslimin te ñu baax lañ moom da gis ne ñoom dañ leen di tuddee ay xawaar te xawaar daal rek moo ko kaafir xarawuñ ixwaan yi dañ naan ne ay xawaar la ñuy arab saudi ay fatwa la génn ci seen borom xam ne yi gën a mag dajale fi ñu dajale fatwa ñu koy wooyee euh, lañ na daayima li lifta ñoo génn ay fatwa fatwa ne euh, ixwaan muslimin yi duñ ay ahlu sunna wal jamaa ay xawaarit lañ génn leen ci ahlu sunna wal jamaa loolu boo ko xoolee xam ne politique kese la léegi nag ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy tax wax dëgg-dëgg mooy xew-xew bii xew kon loolu mooy doxinu Arab Saoudi maanaam moom am réew la moo xam ne dafa ñëw pour tàqale jullit ñi may doole Israël relation am nag ak Israël ay relation yoo xam ne relation yu dëgër dëgër la loolu ñu bëri bàyyi xel waaye relation yu dëgër lañ am ndax ku ne xam na ne am na yahudi yi ñu ngi tàmbali dem Israël ñu ngi tàmbali dem Arab Saoudi di visite Arab Saoudi loolu ku topp ku mu taaba axbaar yi da nga fay dem seen rabita alam islami mos naa dégg seen ci leen jiite daal ne dañu woo yahuud ñëw siyaare fi arab saudi wax na kaaram ñëpp dégg ko am na feneen foo xam ne fii mbooloo lañ àndal mbooloo la àndal moom kooku jiitee rabital alamin islami mbooloo mag la jiite dem ki nga xam ne moom la ñuy wax al mahraqa mooy fi ñu wax ne fi la fi la fi la fi la fi la Hitler doon doon lakk juif yi dem fa daal fay ñaan am na julli julli buñ fa julli sax ñaan julli timis la ñaan jullit ñaanal la ala kulli haal julli dem nañ ba àgg fa julli fa mujj wax wax fa tam benn xutba daal ne lii xew ñoom ñu ngi koy rëccu te ñu ngi koy ñaawlu te it ñaan nañ yàlla du ta amati maaraxa bu bu toll noonu lu toll noonu lu bon lu toll noonu nag xew na ci Palestine yi te kenn ci ñoom ngaa ngut yéew jàbb ci rabita alam islam man déggum benn message mu joxe ko ci liy xew nii ñaaw ñaawlu ko métitlu ko euh, euh, defal Palestine yi te Palestine ay jullit lañ te ñee ay yahud lañ te ay yahud ñoo def loolu waaye defuñ ko loolu nag li may tekk rek mooy am na mbooloo yu bëri ñuy créé yoo xam ne mbooloo yi boo ko dee xool da ngay foog ne turu islam lañ ko jox waaye xaqiqatan maanaam dëgg-dëgg ja euh, la suuf dëgg-dëgg la ko la ko ëmb dëgg-dëgg du dimbale islam mais dimbale xeexal islam la loolu nag ab jàng na laaj euh, mbooloo yu bari daa xam naa ne mbooloo yu bari ñu ngi koy formé ci réew jullit ñi mbooloo yi dara taxu koo jóg lu dul màbbal islam waaw loolu nag mi ngi arab saudi nag mi ngi gën ngi tàmbalee feeñ dëgg dëgg lan mooy arab saudi bi Muhammad bi bi Salman ibn Abdul Aziz toogee Malik Malik bi fi toog tey nii bi mu toogee ba doom ji ci boppam toog ci la lu bëri tàmbalee xew mooy Mouhamad Ibn Salman Mouhamad Ibn Salman dafa am benn lu benn programme bu mu teg mu tuddee ko mu 2030 muy vision 2030 daanaka vision bi da koy xool fii ba 2030 la ko def maanaam dara daal li mu bëgg soppi ak li mu bëgg a changé Arabie Saoudite fii ba 2030. ru'yu boobu nag moo mu mu ëmbaale lii nii mu ëmbaale lii ñi xew-xew yi ngay dégg yëpp mu ko ëmb ñu bàyyi xel baax ne ubbi bit ubbi bitig bu ñuy jaay sàngara moo gën a tuuti ubbi ab bitig bu ñuy jaay sàngara moo gën a tuuti ci gis-gisam bii mu tudd ko roue deux mille trente man lu man bitig bu jaay sàngara kese ci Arabie Saoudite lu simple la fa concert yi fay am moo gën a garaaw concert yi fay am moo gën a garaaw lim njëkk def nag mooy xam nga Arabie Saoudite ñoom comme dañu jàppoon ne ñoom daw la Islam yi la di tadbix sharia na dawla tawhid la daa am luñ créé won dafa am mboola muñ formé won ci doon ko hayatul amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar mbooloo mo xam ne ñuy digle lu bax di tere lu bon kon dañ tuddoon mbooloo mi mbooloo mo nak daan wër ci dëkk bi kuñ gis ngay def la war la nga ciol sol bu baxut wala nga mel melokaan bu baxut ñu wax ak yow buñ mëne wax ak yow wax ak yow wala ñu jàpp la yóbbu la wala ça dépend waaye daal faaw ñu ñu wër ci dëkk bi daal kuñ gis nekkoo ci la nga war nekk rek ñu wax ak yow so so ci baaxu sa melo kan baaxu sa baaxu bi al ya ngi mandi wala ya ngi def nangam ñu wax ak yow bu jaree ñu jàppale yobul ñu jàppale yobul la ñu ko xeex mbedd mi nangam nangam Mohammed ibn Salman dafa dindi xey ak bobu da ko tass dafa tass xey dafa tass mbolo mi nga xamne ñu diglu lu baax ak tere lu bon léegi nag créé benen mbolo mo xam ne tuddu xey ak tarfii xëyatu tarfii tarfii nag mooy fo maanaam léegi mboolam fo ak caaxaan la tudd mboolam bi nga xam ne fo ak caaxaan ko tax a ay fo ak ak caaxaan ak fiixal sa fiixal sa bopp waaw noonu mboolam bi tudd ay fo caaxaan fiixal sa bopp daal mboolam bi tudd li gën a garaaw te gën a garaaw mooy sëtub Mouhamad ibn Abdul Wahab moo ko jiite mu ñu ko ku ñu wax Turki al Cheikh moo jiite mboolam nga xam ne boobu ak léegi mboole ñu ngi gis nii muy muy nekk Arabie Saoudite jënd ay équipe ak euh, woo ay jeunes ñëw faat lu nekk ñu nekk sax jigéen dawal otoog créé benn université boo xamante ne bii université bi góor ñi ak jigéen ñoo ci nekk dootuñ séparé góor ñi ak jigéen yooyu yëpp ñu mu commencé à créé wu mu commencé à formé ci biir Arabie Saoudite waaw créé tam ay ay ay ay ay ay ay concert anne annuel yoo xamante ni bii am na bu ñu ciy tuddee euh, lu ci gën a siiw ñu ko tuddee mawsimu ah, riyaat waaw riyaat saison dañ ko tuddee nga xam ne mawsimu riyaat dañ ko tuddee deux mille ñu ngi tàmbalee am deux mille dix la commencé xam ne am na deux mille dix neuf deux mille vingt un deux mille vingt ba deux trois am na yëpp am na si deux mille vingt trois bi muy am deux mille vingt trois mi ngi tam mi ngi mi ngi tombeeg songu Gaza maanaam Israël ñu ngi dóor boobu ba def Gaza rey Palestiniens yi ñoom ña ngay fecc ka way ci seen moosum réer euh, nga xam ne moosum riyaat boobu walla riyaat season boobu wax na moo tàmbali deux mille dix neuf wax nañu ci deux mille vingt trois euh, daanaka quarante mille personnes bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo visité woon ñoo bokkoon ci ko ci ci ci événement yooyu noonu nga xam ne fecckat yeeg te mawsim bi nag ñu bàyyi xel baax li mu di ciy nekk lan la mooy ay concert musique musique arabe réew arabe yëpp ku ci nekk rek tamit ne artiste bi man dem dem réew européen yëpp Australie américain yi musiciens yi rap musiciens musique rap góor ña jigéen ñi c'est ay football ay catch bu góor wala bu jigéen wala bokk sax bu góor bu jigéen même sax am na euh, lu ñu ko waxte ab ab ab ab ab ab ab concours de miss xaj concours miss xaj maanaam xaj bi ku gën a rafet rafet la xaj am na fa ci trente novembre deux mille vingt trois ci Riyad ndax benn concours boo xam ne concours concours miisu xaj la nga xam ne xaj lañu ku nekk da ngeen si xaj àdduna bépp indi seen xaj xaj bi ci gën a rafet waaw yooyu yëpp ma nga fa am ak concert boobu ma ne xam ne concert bi euh, wax nañ ne daanaka lu bëree bëri ci ay dana dañ fay ñëw deux millions trois bi sax am nañu bind ne douze ñëw na fa ñëw na fa ci ay nit yoo ci cent cent jours la am na tam leneen lañu leneen la ñu wooye middle best middle best dañ koy wooye moom tam wàllu musique la ak fo ak caaxaan ak dem noonu musique bi nag ñu bàyyi xel baax ni euh, comme musique bi am ci Europe la doon musique bi am ci Sénégal musique bi am fu ne doon ñuy dem foofu tam ñu fay dem euh, dañuy dem pour musique am na ku ku bëgg a muuru muuru mais ku bëgg a bàyyi sa mel na lan na nga da am ñoo xam ne ay par lañ sol ñu sol ay seen bàyyi seen yoon ci biti góor ñu góor ñeen jigéen ñi fecc mi ne tu léegi maanaam maanaam ixtilaat daal boo xam ne moom lépp la ak ak sax nag beneen piscine boo xam ne am na piscine boo xam ne seen ci ñu ngi ci boori baaru ahmar piscine boo xam ne piscine arab saoud la ak saal saal fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy koy wutade ak tefes la xam ne tefes gi dafay ay sirib lañu sol comme ni ko tubaab yi defee rek bu guddee ñu nekk ci saal ci ci ci di fecc ko bay comme ni tubaab maanaam daal li nga xamante ne moom islam santaane ci sàmm say cër moom daanaka bana jeex nañ ko jeex na ko jeexal na ko te lii nag commencement rek la nag parce que deux mille trente ñëwagul parce que ñu ngi deux mille vingt quatre nga benn at yaakaar ne pour deux mille waaye moom nekk ni mi ngi teg ay mi ngi teg ay point kon li ngay ñi li ñuy gis nii mooy kii sàngara bi ñuy gis nii dañ gis leneen dañ gis leneen waaw am na yeneen yeneen yoo xam ne dana fa xew yoo xam ne yu bokkut ak yu bokkut ak yii la yooyu yëpp nag day dugg ci biir ruya bi parce que moom dafa jàpp ne Arab Saoudi réew mu libre la woon euh, wahaab yu nii dañ koo dañ koo kidnappé léegi nag dañoo kidnappé peuple bi leen dund lool loo xamante ne bii du dara parce que bi waxaay bi xatal gi ñu xatal du dara kon moom faw mu libéré waat leen delluwaat leen fañ nekkoon ubbeeku waat di fo di fecc di ree di kaf daal islam nekk islam ku neex rek islam islam sax si personne ku nekk ak ku bëgg dund islam dugg dund si islam ku bëgg dund bàyyi nañuy noppal fii ne boo demee Arab Saoudi benn jàkk bu ñu mayee kenn teg fa ab rajo maanaam teg jël rajo taal ko teg alxuraan ci biir mayee duñ kenn Arab Saoudi moom noonu nodd nodd la si may ak li xaam kese la si may mayu la si leneen imaam sax bu jàngul jàng sax wala bu dañ koy wàññee wàññi ba mu suufee ba nga xamante ne bi daanaka ñi ci jàkka ñëpp presque ñoom nag ñoo koy dégg kenn du ko dégg presque ñoom ñii nangam nangam te gis ngeen ak bi ay concert la ñuy créé concert la ñuy amal waaw lépp nag ñu xam rek ne ab étape la boo xamante ne bii dafa tàmbali àgguwut fañ jëm man nag ba ma koy jàngata dama koy lii lépp lépp di xew bu ma koy jàngat damay jàngat ne damay gis ne euh, ab xeex la bu yàgg te it xeex bu tàmbal la bu jur yi di xeex pour nanguwaat seen réew man damay gis ne loolu mën naa koo gisee ci comme xeex la beneen bit mooy dama ci gise ne ndekete Iran bi ñu wax naan du réew mu baax réew mu baax ndekete loolu lépp ay chiens lañ ay nit ñu bon lañ ay nangam nangam ndekete man boo koy xool ndekete xeex boobu xeex Iran moom ndekete xeex jullit ña kese la fexe ba ñu am doole kese la waaye du du du Iran daa ñu war koo xeex day ay chiens dañu sàgg saxaaba yi ñu war leen xeex déedéet loolu taxul ñu leen xeex li tax xeex Iran mooy doole ji Iran yore lañ bëggut mu nekk loxo jullit ñi waaw ñu fexe ba écarté jullit ñi ci pays bi nga xamante ne bii pays bu dëggul dëggal ci islaamam la te dëggal jàppale islam la noonu tam noonu islam yi ñu fexe ba pays boobu ñu sori ko waaw ndax yaakaar naa ne tey buñ ne woon rip buñ ne woon iranien yi kat seen réew ma seen seen seen nguur ga dafay dafay dafay organiser ay concert musique wala commencé di ci woy tubaab yi ak yahud yi ak góor jigéen ñiy fecce ko waaye bëgg bët set ci lu toll fukki fan juróom wala toll ñaari weer wala toll weer loolu àdduna ci tukki lay doon loolu mu day mel ni àdduna ci tukki lay doon te amu fa Iran ba fi mu nekk nii ku mën di wàcc réew ma force da nga da nga da nga musóoru ba fa nga jëm sàngara kenn du fa jaay publiquement amul fenn foo xam ne dañ fay jaay sàngara nii foo xamante ne may nañ kenn bitik mu di jaay amul yii nga xam yii yëpp am fa ay góor jigéen ak yëpp dañ koy tere nag am na benn waay benn waay boo xam ne moom mi ngi jéem a fexe ba saxal yi waaye yi amu amu fa lu fa amee du du nekk loo xam du nekk loo xam lu officiel lay doon waaye arab saudi moom yi nga xam ne moom lay tudd nii daanaka yëpp dafa officiel sàngar commencé na nekk officiel la fi nekk nii nit ñi nit ñi ñoo ko jaay waaye gouvernement bi fa moo ko daganal fecc ak conseil yoo xamante ni di jigéen lañ jaxasoo góor ñi di fecc nii sol kenn ku ne sol col goo xam ne col gu sam nanguwul la ñuy fecc ni loolu moom diine maanaam réew mi moo ko moo ko organisé du nit ñaa ko organisé day mënte rek euh, ñun woon ci suñ dëkk yi yu bon yu mel noonu loolu moom ku ne xam na ne àdduna léegi nag tàqale gi bi nga xamante ne bi tàqal nañ ko diggante Iran ak jullit ñi wala diggante ahlu sunna ak chiites yi kan moo si gañe question bu am solo buy ñu war laaj kan moo gañe ci xeex boobu kan moo ci gañe ki ci gañe mooy yahud yi yahud doo nga ci gañe tey jii nii jamono jii ñu toll nii yahud ñi ngi bombardé Palestine bombardement yu métti yoo xam ne nga ñi nga rey nañ ci toll ak ay vingt cinq mille personnes vingt cinq mille personnes yoo xam ne ay ñeenti wala ak juróomi nit vingt cinq mille deegul nañ ci ci ay nit ñaar fukki junni ak juróom am sax ëpp na ko dee nañ leen ci ay xam lañ lañ jàq ci ay dëkk moom kenn xamul toll léegi loolu lépp lépp lépp loolu lépp muy bombardé te ku ne xam ne ne ba léegi Israël mënu ko duma chiens yi nangu seen dëkk ba na mënut mënu ko duma Palestine nangu seen dëkk ba te Palestine yi bu toon bu toon bu toon Israël la bu toon bu toon chiens yi la duñ résister li ñu résister ni Israël rek Palestine Israël rek ñu doon jàpp muy Iran rek moo doon jàppale kon man dama jàppale ne nit jullit ñi war ñoo yeewuwaat ñoo xam ne Arabie Saoudite nekkul modèle boo xam ne bi dañuy xool ci moom doro ci moom leneen li ñu war a bàyyi xel tam mooy Arabie Saoudite moom ñu bëri suñu réew mi su su koor jotee naan su weeri feeñee Arabie Saoudite rek weeri feeñ na feeñ na am ñoo xam ne fii ci réew mi wahaab yi buñ ne koore jot na dañuy xool déglu arab bu ne war na nga ñoo ñoom ñu waree buñ ne tabaski jot na loolu lépp nag wóor demee noonu parce que am réew bu fekkente dama nga ba commencé dagana sàngara la nga la daga la nga araamoon lépp commencé ko dagana yow amatoo mes daax yi pour pour jiitu jullit ñi ci diine amatoo euh, benn lu la benn valeur bu la mën a jox wala jiitu jullit ñi ci diine parce que diine sax la ci ay principe borom diine day sax ci ay principe am la nga waxoon araam na ba tey da nga koy araamal yow mënoo dem mën a araam engrais sàngara araamoon na tey dagan na fecc araamoon na tey dagan na góor a jigéen jaxasoo araam na tey dagan na loolu loolu du diine nit nag ak bu commencé def loolu dañ daal xam ne kii kat warta nekkati ku jiite kenn ci diine loolu nag man mooy sama njàngale nga xam ne moom laa jàngat ci xew-xew bii di wax nag xew-xew bii man bettuma te it xam naa ne yeneen xew-xew dana xew yu gën a garaaw yi fuuf am na beneen dëkk bu ñuy créé boo xam ne mu ngi ci boori Israël tuñu Arabie Saoudite moo koy créé mu tudde ko Neom bi nga tudd Neom dëkk bu bees sàq la boo xamante ni dëkk bi wax nañ ne ëpp na New York trente trois fois dëkk bu boo xam ne dëkk comme dëkk bi nga xam ne moom la waa ji doon bëgg a def la rapport boobu dëkk Nigéria li mu bëggoon def dëkk bi mu bëggoon def Sénégal dëkk bu mel noonu la ñuy la Arabes Saoudite di créé fi nekk mu jënd ko néewam ko gëstu gëstu ko yooyu yëpp nag yëfu yëfu dong la. man daal li may li may li may bàyyi xel bàyyi xel mooy jullit ñi nañ bàyyi xel ne fi nekk nii moom lépp lu jóge Arabes Saoudite si ba ñu tey waaw diine moom nañ xam ne moom gàddaay na fa. waaw nah, yënt bi daal moo fa moo fa des ak kaaba ga ak gaa yu baax yi fa denc ak benn benn yi fa nekk te te ba léegi des ak mbaax amma amatu réew moom nekkatul réewum diine bu naan tatbiix sariatu islamiya tatbiix lu téye seen nguur la maanaam ñu appliqué rek la la téye seen nguur ci sharia la buñ ne réew mi dañuy atte sharia lañ ko atte mooy la téye seen nguur ci sariya mooy tiital nit ñi dagg loxo yeeg dagg baat yi ci tiit ak ah, fexe ba tiital nit dagg baat yi ak dagg loxo rek téye ko seen nguur la waaye islam ñoratu leen taxawuñu islam. moo tax suñu réew yi tam ñu nga xam ñoo nekk suñu réew yii jàpp ne arabe saoudi réewum diina la c'est ba ñu jàngatee seen mbir pass pass yi nga xamante ni moom la arabe saoudi tasaare ci àdduna bi tasaare ci waxaabi yi itam ñu koy wëndal ci àdduna bi. ku ci nekk tamit na nga bàyyi xel ne jàngatar baax li nga yor ndax islam la xoola as salafu saalix ñan lañ pour nga xam ba xam ñan ñooy ñan ñoo nekk ci islam loolu daal laa amoon man lu wax ci vidéo bi doon wax ja gudd na waaye ñoo ngi siyaar baax ñëpp di jégalu di wax ak ne loolu daal euh, ngi yi def mbokk mi nabi bi setan video video ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind j'aime bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax vidéo buñu dëgëlati di ngi ci jot jaa